maa ngi fàttaliku benn xarit bu nu am bu ñu wax baara loo coiffeur la woon nekk ak noonu ca rue de Dene am fa saalam di wat yàlla dogal am keneen koo xam ni moom dafay woote ni wér du cheikh la amee te gis na ni baara tabarkal la tabarkal la eh, cër bi ko yàlla jox ci ñun moom amu ko mu xund nag dal di dem gisi góor gi amat ba waaw dem gisi góor gi amat ba ci paan ni daal daf ma joxul de ci boppam dama gis mu xaritoog baara te baara moom bokkul ak moom tariqa wax a wax a wax a wax mu ni ko baax na kon dina ci waxtaan ak moom faf ma ñëw rek ci seen Babacar fekk fa góor eh, gi amat ba mu jottali ma yóbbante bi ma ni ko ànd kenn du ko wutal nit ma ni ko baara dañu déggoo dañu déggoo ndax xolam dafa sell dama suma fàttaliku fu mu toogee ba wax musiba ma ni ko loolu moo tax sëñ Babacar daal di ne ah, lu jafe waaw ma daal di xam ni wéyal na loolu waaw naka la ne lu jafe rek ma xam ni wéyal na ko góor gi ba it am lu mu ca dégg daka la génn rek te baara dama ko mësuma ko laaj kuy wasilaam ma defe naa ni daan naa gis photom ci maam Cheikh Ibrahim Fall ndeysaan góor ki amat ba ci yitteem mësuma gis ku mel noonu mu dem way baara te kenn ëpp ko woon cër ci tariqa bi seetal loolu maa ngi ko dégg ca mbedd man de ko mag sëñ Moustapha ko bokk sëñ Moustapha di ko aw muy wax baare man lii de kenn mosu ko gis waaw waaye nag ci wolof rek la daan wéy wéy baare nag coiffeur la woon waaye ma nga naan baaruloo coiffeur sa baax gisiw na te wóoru waaw walaay ndeysaan sëriñ Moustapha di ko aw seetal loolu looloo tax xol bu baax rek am solo ay ndeysaan ñu soppi ko rek nag mu neexa neex ba nga ni lii li ma doon bare moom dafa mujj rek mënatu ko supporter ndeysaan seetal loolu te kat ki doon boole noonu tariqa bi lay wér dal waaye ku ko yës xol amul maa ko xam waaw maa ko xam may daw ko bil ku liyati nag ah waay loolu kenn mësu koo gis baara nekk nekk suñu xarit kenn mën la ko nettali tabarkalla tabarkalla pour wax la rek nii xool bu sell baax na de xol bu sell baax na de tabarkalla tabarkalla xol bu sell baax na lool ba defee yooyu rek fi ne ngeen jël ko comme héritage waaw ngeen jël ko comme héritage ñun lu nu mën jàppale leen kooku noonu la tabarkalla tabarkalla